jeunesse bi ngeen gis xam ngeen ni paré paré nañu pour lepp bu waré dé dañuy dé bu waré leneen dañ koy def asan kasse moy kan kan moy asan kasse est-ce que fi ngeen gis kër yi ngeen gis ñun on a un problème d'assainissement bu tawé chaque semaine dañuy ngatch maire bi bu mu safara loolu lu ñuy dee koy dé ñun on n'a pas besoin de ça marché de Foucault, marché et on ne va pas l'accepter ñun marcher marché beaucoup un marché moderne beaucoup dara xam luñ bëgg espace pour la jeunesse pour la jeunesse réfugiée. et je pense que vous faites un projet le président am nañ projet et on mettra les projets sur la table Nous allons nous avec les autorités Nous allons mettre en place le xam c'est pour la jeunesse c'est pour nos braves femmes comme poste de santé ñun est-ce que am ñu droit am centre de santé am ñu droit am mosquée bu mag pour quoi pa centre culturel complexe culturel pourquoi pas. bu ñu amul woon yar tey lii laneen lay doon yàq lay doon xeex lay doon wala laneen ñun marché bëgguñu ko bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg ndax benn lieu bii la ñu am ñun maire kase xamuñu ko suñu koñ bii bu tawee kenn du génn wax nañ ko bu tawee kenn du génn ñii ñoo fi nekk suñu doom yi lañuy gis. ño fi nek di set setal di ci ndox mi lu ko mooy kenn du meuna genn sa keur ñu sonu bay bëgg a te xamuñu ko te ñun nor lañ dëkk te mo yoré maire nor ba paré nak bëgg juk jël suñu terrain bi nga xamni mom lañu am c'est comme lié suñu doom yi fi lañuy def ñun jigéen ñi programme ñuy def fi lañ koy def mu ne da fi def marché di ñu yok ay wëyu di ñu yok ay bandi bu saxé bu tawé sax yi dugg ci suñu biir kër yi duñu ko nangu tay duñu ko nangu ëlëk commissariat bi anuñu ànd ñu si commissariat bi parce que am na yeneen espace yoo xam ne moom lañ ko war a def ñoom dañaa ciblé fii pour jël une partie jaay beneen parti bi maire dafa bëgg a jaay suuf si maire loolu la bëgg a def te duñ ko nangu. duñ ko nangu lu mu jaral lu mu ko jaral jaral nañu ko jaral nañu lu ëpp loolu. bu fekkee dafa bëgg a jaay doole bu ñëwee fii dina xam ne sant yàlla takko da baax. pare nañu pour dee mais kenn bi kenn du ko jël.